émission bu ñu mujj waxtaanee ak yéen mu di jëfi yàlla dëkk bii nga xam ne mooy jafandul mu doon seet ki ko buur yónni te muy joor gis na ko waxtaan na ak moom ba joor nee na ko buur jëttoo moomu laa bëgg nga indi ma ko nga xam ne mel na ni daal jëfi yàlla am na yaakaar li mu doon dox ci ne dina sotti te la jëfi yàlla nag tàggatoo woon ak joor jóge nag jafandul jëm si nag kàngaarloo di def na nam doon def di jaar fi mu doon jaar li nga xam ne moo ci wàññeeku daal mooy lépp luy jaay ci ak lekk su ko gisee te bëgg mën na koo jënd ndax ndaw si jox na ko lu bari ci alal te ba mu koy xalamal te ndaw si bit loolu daal moo xaw a neexal yoon wi ba nga xam ne moo bu jëkk waroon nañu mu ngi yendoo ko fanaan nag yoon wi daa gudd te amul lu mu dugg mi ngi yendoo ko fanaan di yendoo ko fanaan ba agsi kàngaarloo naka la ñëw ñoo taxaw buntu kër buur jëtto daal di nuyoo garde yi ñu fay ko mu daal leen di xamal na leen dama buur dama yónni woon ma dem ba ñëw bëgg ko xamal ne ko ñëw naa ñu ne waa buur de noon na woon yow boo accès rek muy guddi muy bëccëg nañ la bàyyi nga dugg garde yi yàkkamte lool garde bu ne bëgg am ndamal maa ko dugal ndax fu mu jub rek ñu xajal ko garde yi xajal ko te ngir nga jàll nag ba accès ci buur jëttoo di nga romb ci ay garde lu jóge juróom-ñett fukki dañoo gën a kawaate maanaam garde yu mujj yi dafay nekk garde yoo xam ne koo ci gis da ngay xam ne kii rey nit ak rey ginaar la toll ak nañuy xoole ak nañu mel melakaan wa jëfi yàlla di jéggat na garde yi ba agsi ci garde bi nga xam ne moo yore buntu pale buur bi mu dikk ne ko man maa jëfi yàlla mi buur yónni woon mu ne ko waa yow de buur waxoon na ne waxtu woo dikkee nañ ko yëgal ne ko ñëw nga te bàyyi la waaye xaal ma dem wax ko ne ko ñëw nga daal di dugg ci biir naka la dugg yëngu rek buur daal daal di yaakaar ne jëf yàlla mu daal ne ana kooku daal di génn si ñëw ci palais bi mu ne ko jëf yàlla ngi ci bunt bi mu ne ko bàyyi ko mu daal di koy bàyyi buur ci gàngu naay di xaar nag jëf yàlla jëf yàlla dugg si buur daal di woo garde bi na ko nag nañ ma may li fee woote wu ma bu kenn ubbi bi ak ku doon ak ku a seet bu kenn ubbi buntu waxtaan nu may waxtaan ci biir gardina waa daal di ko yëgal moroomi gardam bi ñu tëj buntu yi nañu defoon te ba ñuy waxtaan bu njëkkoon na buur defoon digganteem ak yàlla léegi buur jëttu defaat na ko digganteem ak defi yàlla mu daal di koy yónneel ndox yónneel ko meew mu sedd jox ko mu naan mu toog ba nga xam ne xelam dal na mu ne ko da nga dem xëppoo ndox jëf yàlla dem sangu ji dikk mu jox ko lekk mu lekk mu daa koy xelal lu mel ni si kaaña naan la boo xam ne nit ku ko naan mën ngaa dawee fii ba ndar te doo ko yëg ndax sawar mooy si kaaña loolu la xelal nag jëf yàlla jox ko mu naan buur naan ñu teg seen ñaari kaas buur di fa laaj jëf yàlla yi ton jëf yàlla buur ne ko waaw na nga def mu ne ko man maa ngi nii rek mu ne ko dem nga ba ñëw mu ne ko dem naa ba ñëw mu ne ko mbaa jàmm rek mu ne ko jàmm ak salaam mu ne ko gis nga joor jafandu mu ne ko waaw naa ko de buur ne ko gis nga ko mu ne ko mu ne ko li may jëkkalaat mooy taaram bi ñuy wax ci moom tax buur yi dem di kër yi te buur buy dem dinañ yóbbu alal ju bari te boo demee la muy jëkk def mooy berndeel la ndax taar am na mu ne ko lu la ci wax buur des na ku ni taaroo musul mu ko gis man te dëkk yi ma dem bari na waaye ku taaroo ni moom mosuma ko tëgg mu ne ko daa gàttam daan njool mu ne ko digg bi nit la gàttul sewut njoolut rëyut dafa yem mbur géeto ne ko waaw waxee nam nam def mu ne ko waxee nu jigéen tubarkal la di ko wax bindub ndaw si di ko wax bindub ndaw si di ko wax bindub ba yàgg mbur géeto fii laa ngi dugg mu ne ko waa jafandul yow yow xool nga ndaw si de mu ne ko xoolal naa la ndaw si yow ko doon xoolal waaye du man mu ne ko ah ne ko waaye li nga ci wax lépp nga ci mu ne ko li ma ci wax des na mënu ma wax lépp ndaw si ko la tax a jóg jëf yàlla na ko waaw waaw mu ne ko léegi lu mu wax mu ne ko ba ma àggee ba ci moom dafa ñëw toog ci gàngu naay gi daal ma joxoon foto bi ne ma naa ci toog ma daal di wagasu yegg suuf génne sama xalam daal di xalam nag bi ma xalamee génn buum teg ñaareel ñetteel bi saara ba ma yëg ne ndaw si fi ne àndatul ak sagoom gis naa ne fii mu ne xalam gi nu ma xalamee mu ànd man ca di jeng ndeyjoor di jeng càmm léeg-léeg mu dem ubbi gaal gi yëkkati alalam jox ma ñëw di ma ko juugal ci sama kanam ba mujj yaa gaal gi widdu mujj mu xamal ma ne ma xalam bi laa bëgg nga téye ko dana waxtaan ndax soo ko bàyyiwul léegi tey ma àgg fu ma néew ma nangul ko loola mu ne ma léegi dafa am loo xam ne daf ko doon wut bu yàgg ba léegi si muy ku mu sëyal ku mu bëgg sëyal limal na ma ko it buur yi nga limoon yëpp limaat na leen na leen na ma ñoom ñépp ñëw nañ fi kenn ku ne indi na alal gétt la indi kuy ñëw ku ne ànd ngaa géttug nag géttug xar géttug béy maanaam daal lépp luy daamat tañ soxla woo ko buur yépp kenn ku ne ba nga dikk ñu ngi ci gétt waaye amu ci kenn ko xam ne kii tontu la bu neex amu ci kenn ko xam ne kii toog naa moom ci lal amul may ko ci benn buur mu ne ma man nag nee na ma dafa bëgg ma takk ko te man lépp luñ ciy def moo koy def maanaam moo yore fere yëpp moo koy def ndax xalam gi nga xam ne xalamal naa ko neex na ko neexit boo xam ne yégatul wenn naqar ci àdduna bugg ne ko bi mu la waxee loolu loo ko wax jëf yàlla ne ko bi ma ko waxee dama ko ne man gawlo laa ak may nga ma waaye ab sëy waruñu koo séq sab xalamkat rek laa samay may nga may ma waaye duñ séq ab sëy mukk ci àdduna lal bi sax duñ ci bokk toog ñaan ma xamal ma lu nekk dig ma lu nekk waaye man li ma taxoon a jóg ngor gi ma taxoon na jóg loolu lay sàmm ba wax ja bare ba bari mu seet ba xam ne man mii du ma ko takk te nanguwuma ñu may ma ci ko ne am na loo xam ne soo ko defee dana mel ni sëy nga man mu ne ko lumu mu ne ko am na sama wëlu réew bàyyi buur la muy buur géttoo te bi sama baay gaañoo sama baay moo doon léppam di jaleem di ko xalamal di xaritam di wëlëreem di conseil technique am ko ci wet gu ne sama baay mi ngi tuddoon Sangoné bi mu faatoo nag man ma judd ba te gisuma sama baay bi ma juddoo nag ma laaj sama baay li mu doon liggéeyee ñu wax ma ko ci laa jóg jàngi xalam ba man ko dikk laaj sama yaay ne ko ndax sama baay bàyyi ne fi wëlëre mu ne ma waaw ma ne ko kan la mu ne ma buur dëkk bi mooy buur géttu sa xaritu bàyyi la woon benn bakkan daaw ñu tàggoo guddi ak bëccëg sa baay daa xalamal mësul dem fenn te sa baay fu ko woo ngan wala moom mu di fa gane faaw ànd sa baay ci laa ne yaay maa ngi dem sant kóolure kon ak buur géttu ndax man sama yéene yi bëgg a ma demee fa santeeg moom kóolure waxtaan ba benn bis la ma ne ma am na lu ma la bëgg a sant ma ne ko lu mu mu ne ma bëgg nga dem jafandul am na fa ndaw su ñuy wax joor joor moomee ay garmi dem nañu fa ba tàyyi lu mat fukki garmi ak ñaar xam naa ko ci yu fa dem waaye ñëpp la dàq kenn ku ci ne ba ngay dem xamoo foo jaar ndax gàcce ba moom noonu na bu jëtoo ne nan man loolu moo tax ñu ngi mun a dem man ca joor ndax gàcce googu man xajoowu ma ko ñu ko teg ñu xajoo ko dañ maa gën a xol waaye man bur jëttu bu doonte ne man la li ma wér mooy foofu laay tàmbalee fetalante gerte déclarée waaye nag ni ma dégg ndaw si bëgg naa ko mbëggeel goo xam ne ak it buur dee bëgg a xëccoo gannaaw fanweeri gër mi ak nangam dem nañu fa fukk yeeg ñaar ma xam leen li des ma dégg ko kon man te ñooñu jotuñ ci man su ma sama ngóor mooy ma dem fa ta jot ne ma nag dama fa bëgg a yónni ndax ne na am naam xel te moom sama xel doy na ko te xam na sama ngor mu ne ko wax ma dëkk ba fan la ma dem ca ma tegtale dëkk bii di jafandu ne ma ndaw siit joor la joor la fi du muy yow mi tey laa jóge nag ne ko bu soobee yàlla incha allah ni nga ko bëggee naa koy defee man nag ab gaawloom laa xalamkatam laa te it yaa ma yëkkati waaye yëkkati gi ma yëkkati mooy ci moom moomu laa bëgg mbëggeel bu nekkoon ci man nga def ko ca moom. te soo ko amee mel na ne ñàkkoo ma soo ko ñàkkee nag doo am bi ma ko waxee nag nangu na bu gét na ko nangu na mu ne ko waaw dama daan sama kaddu mu ne ma léegi ñëwal nga dem indil ma buur géttu loolu la ma tax a ñëw ma bëgg na kon nga waaj mu dem buur ne ko léegi du yàgg daal ne ko jërëjëf daal di koy may nag tubaarkàlla ju bare bare bare bare bare ne nag demal seen kër bu subaa dinaa dajale waa dëkk bi yëpp def ak ñoom waxtaan tàggu leen tànn ñi may àndal ñu dem nag jafandul ma seeti may door jaf eh, jëfe yàlla daal fay jóge ñëw seen kër yaay seen kër daw gàttandoo ne ko jëfe yàlla ñëw nga mu ne ko yaay ñëw na daal di wut bank daal di toog yaay ji xëcc ci sees daal di toog yaay ji laaj ko nag aw yoonam mu nekk nag yaay li ma doxee woon moom du ma la ko wax ndax waxoon naa la li fekk sottiwul du ko wax te sottiwul dama fee ñëw rek ngir xamal ne subaa ak jàmm buur dina woote ci pénc mi su wootee bu ko waxalee boppam nga dégg ku ma dégg su ko waxut nu bokk bàyyi ba mu sotti dinaa la ko wax ko waaye jàmm ak salaam ko jàmm ak rek la mu ne baax na ñu fa naan asamaan seet géwél bi daal jël nag janjoor yi tëgg ko mooy ndënd mi muy yéenee waa dëkk bépp. mbooleem di dëkk kàngaarloo ak li ko wër laataa yor yor góor penc mi fees na dell ñu ne ah bu rëy mi ngi woote ñu ne ah kon de am na lu xew woote bii daa rëy ñu ne woote bi kay rëy na kenn ku nekk dama lekk fekkal ñu ne ah, ndax dafa am ñu doon àtte ñu ne fi mujj àtte bañ fa àtte ne waaw kon lan ngeen yaakaar ne la bu war a woote ñu ne ah am naa ne boo déggee janjoor yi boobu léegi bu daaw ko tëgg ñaare bu doon ne wooteem nii rek la jibul jàmm bi la ñuy tëgg waaye janjoor yi moom caaxaan taxu ko ñu naan ah, woote bi kay rëy penc mi fees ko gàngu naa tegal ko ci digg penc mi nit ñi wër ko mbooloo mi bari ba tubarkàlla bu la ngi jaaxaan ci gàngu naa gi daal di wol nag jëfe yàlla jëfe yàlla ñëw mu daal di koy jox photo mu toog mu daal di mbooloo mi dama bëgg waxtaan ak yéen yéen xamal na leen nag dafa am dëkk mu bëgg dem te dëkk boobu bëgg naa ci ay ñaan ndax samay morom dem nañu fa te jëliwuñ fa ndam kon su doon sama sago la su ma fa demee man jëlee fa ndam nit ñi nag commencé di xalaat ñu ne waaw kii amul ban dëkk la war dem ñaan boo demee dem defantul ñu ne ah déedéet ah bu kee defantul boo doon demoon bu yàgg ba léegi si defandul mos boppam buur maa yaay ñoom demee buur géttoo ñoom ñëpp ah déedéet dem foofu kay buur na leen wolof Njaay dafa am lu mu wax daf ne ko say morom jari bay soo jarul bayit njëgu bay nga ñu ne ah ci joor la jëm di kii de waxam ji ko dégg xam ne buur ci joor la jëm ñu ne ah joor na wuru foon dem moom joor moom boo ay xalaat am conseil technique du fa dem ndax at loo xam ne doomu la fay jëlee ndax li leer mooy buur maa yaay dem na moo ko ëpp ëpp ko doole ji jiddi dem na fa moo ko ëpp ëpp ko doole te gàcce dafa jëlee buur bu mi dem na fa moo ko ëpp ëpp ko doole te dem na fa ak buur ndaari ma dëkk ma yor dagg santé di dëkk boo xam ne bii mboolem dëkk yi moo ci ëpp dem na fa gàcce dafa jëlee kon moom lu ko dugal ci moom moom moom moom bur géetul nan moo ko dugal ci mu bëgg a dem euh, dëkk bële di seeti joor ñu ne ah li wér de mooy jafandu la jëm mu ne leen am naa ne nag wax bi dina bett ñu bari tëj jotaay bi ndax ki nga xam ne mu laay mën naa wax ne maa ko mujj joor jafandul nga xam ne sama nawlu yëpp dem nañ fa ba régal nañu kenn dematu kon nag na xam ne soxla naa ci ay ñaan dinaa tànn nag téeméeri gawar ànd ak ñoom ak kii nga xam ne moo di jëfi yàlla ak ñeenti ñi nga xam ne ñoo may escorté dawal googu nag kenn ku ne ak fasam ak wattaayam këram it maa koy joxeel dépasse weer bu keroog ñuy ñëw bu ñu fekkee jàmm danañ fa am weer ndax jàmm dafa yaatu bu ñu fa fekkee safaanam jàmm it nag danañ fa am weer ndax danaa fa def loo xam ne wóor na ma ne fii ak weer duñu bàyyi ah mbooloo ma tubarkaal daal tasaaroo mu daal di tànn nag ñetti téeméer te ñoom waxoon daal di xamal nag jëf yàlla na ko waajal dibéer ak jàmm bu ñu xëyee la ñuy dem mbooloo mi mu leen dibéer bu jotee kenn ku nekk na nga takk saw fas ba mu baax nga sol tubaarkàlla te nga war saw fas nga di ko taxaw ci buntu kër bi ñu départ kenn ku ne mu laale looy départ nga wax ko mu jox la joxe weer ñi ñëpp daal di wut nag ay sardi yi nga xam ne ñooy sàmm nag yi ak bëy yi xar yi ñu jiital nag gétt géttu xar géttu bëy géttu nag lépp ñu rumb ko nag ñu nga jëm nag jafandu départ nañu bu jógee na nag kàngaarloo muy buur géttu mën nga jëm léegi jafandul ku muy seeti jor jafandu mi ngi ànd ci ànd bi ak defe yàlla mu waru fas làng boobu mu escorté ko ñu ngay def suñu mbokk